عني نفى إبليس في بحر ما ينبع DSTV ñoo ngi lay ñaan nga abonné nga bës ko la sa notification loolu mooy tax vidéo mu dugal rek nga mën cee jot leen fàtte aimer partager jaa ngeen jëf عني نفى إبليس في بحر ما Yeah. الجن معبود وانت لي كل خير خير كنت راجيه بلا حساب بلا عمل وكفر نبي نبادني فل تجد علما ومعرفة خير ممنون علما ومعرفة أجرا منكم فضاء لا اله الا الله منكم شاكرا لا اله الا الله خزائنكم شاكرا لكم بأمكم وجهكم تزور الله خزائن شاكرا لا اله الا الله شاكرا لكم لكم بأرضكم وجهه في الأسرى على أدنى القاعة Yaa di la la la, me ne fa ba ñaari yoo lay borom daaru xudoo te maam bi jal xariloo yaa bi sey yaa donnu yaa donnu war ma daamu waayaay sunu ndey baay bi makk dinaamu yaa di laay yàlla gëna bamba yaari yoo yaay sunu ndey di baay di makk dinaamu

ko sawera kan sawera kan sawera kan sawera kan sawera kan sawera kan sawera kan sawera kan Jamme mulai ramu, mulai ramu, mulai ramu, mulai ramu, واخلق من الإيمان Imam Imam waaw maa ngi masak baara maa ngi daanal seex yu na ko woon na la yow maa ngi lay nuyoo danaa la salaamu sama mag bas aleykum yaa Mustafa sama jàmbar ja yow maa ngi lay nuyoo danaa la salaamu waaw maa ngi masak baara ya Mustafa Limaamu maa ngi lay nuyu alana alana alana salaamu ya Mustafa Limaamu nuurun ala nuuri ala kibar ala noorin ala ji falli ala ba ci jël nga li maa ëpp soo ko jóor jaay jaarat la noonu ala noorin ala ji fallu sëriñ fallu borom ñaari leer noorin falli loo loo sëriñ laal la borom ñaari leer yi ak bu soobe ak mbàkke alaaji falli ba fi jël nga ndam li naawa bu soo ko jël may jaaratu la lay jaari baayam seelu asidani baayam fallu moo doon fallu bayu may jalaay sabillah di baaya wallaay seenu askan baaya may laya mu dund baadi baaya wallaay sabillah jara sorori masarori masarori tay sorori tay baaya muhammadas annabi baaya sorori makaya sorori tay baaya wallaay khabat bi muqaddas annabi barke jantu la far leer la la la ay bay bamba te leer gaaga jole lay musobe makke jantu la far leer la na ya ora jaratula jara leer gaaga jole wa wa musobe makke jantu la far leer la la la ay bamba Jire la lay ba

a a a Yàlla mu jégal la bi Cheikh Massamba di doon ñu taboo mu jégal la bi doon ñu taboo toggali mu jégal la la bu doon ñu taboo ak bu mag ak bu mag ak ndaw ci aw meloom. kurusu mbaa de xaali mbaa baya xar nagal jële. la la ci jox na la ak du kuy. alaay laay la la. maa la ñuy laal ci bunu sa bale nga loo. lool la ay. waay ju mu rëy rëy. bu bag loo. alaay laay la la. lool laay. ju mu rëy rëy bu bag loo. la jox la bokk la jaaxal jaali Sudan guru mbaay sin mu dey waar muy kimtaan moo jaaxal jaali soodaan góor góor di di man di bay sawtaas ndax man baas maa ñi tey gëriiti Muusaa yam ni góor yow muñaptaal mu ñaaw naa say ganjar nga tekkoon jaay yokkib soo yaa jël ngor ci sew turandoo jël cag mbaax yaa jittin jigéeni duniyaa set tuutoor nasaraan du jàkki say doom loolo xaadimu rasuulullaay waay borom yaareem muur loo nan bu jëkk ne nan saay man sooy woote sooy low gaay a yaa mën ngir maam doful damul ko am daam am nga yaa jam jong la ñëpp doon biir yaari muur muur loo nan ku jekkay faa sabab naa tii nga tey na muy dëgg maa roy mu rog leerul Seex Ahmadu Bamba seetal nag te lañ fexel daan nag wuy naaw lësmentañ ba tey lañuy laaj moom fu mu teeru gayndeeg ndar ga wante sera fa bu dimu kuuy nuyu nuyu nuyu ñu am tolluwaay biir bambay góor jiwul ne jiwul ne jiwul ne jiwul ne jiwul ne jiwul ne gisul kemam daam ko ak suuf te woon sax ñu laaj lu góor noonu gis mbay di. sol dar yu guddi meeteel daar yooyu góor noor góor noor du góor ndax amul noor xam ci leer Cheikh Bamba di góor am noor waaye mooy góor noor ay génnee génnee bu julli ko def lawraam di delluwaat yéeg waaye lay góornoor ba ñu génnee gasal ko am leñ dal koy suul bañ det seen fekk daam toog lay góornoor ba ñu dee ba dal ca kaw daam soxee noo tëf tëf tëf ba dal tamit xool lay góornoor سن بي انا اسلم موس يدن غرد واي اي خندير خادم رسول فجر لنكو fukk ak juróom ñetti fan la woon bisu gaaw yi bokk na muy daara mbooloo ma dal koy dar mu sàlla fa awnu laay awnu laay awnu laay arambal ko dal di wéy wéy te géewal la féeroog noon ya rinkum ni ngeen ba dal wajar jaa ngi ànd ak moom keroog en na jeewale bu naaguloo ibliisu noonam ya moo ko far sëriñ yaa xam yàlla yaa wàcc ci ëttam te wàccoo nga ab yónneen diineem te wàcciloo sëriñ bamba yaa xam yàlla yaa wàcc waay te wàccoo nga ab yónneen ci diineem te wàcciloo may a asakay jagle sëñ Bamba yam laloo bul wër kemam doo fekk maasan te gaay wi te duutoo gisaat maasam ci dunya bu leen xuloo dafay ayatul kubra raw xale ya koy xalam xalamtil ba def leeram ya yaayam ya daa faloo bamba ki lay meng sëriñ tuuba moo di meng ki meng waa ji suubu daf ci ci wu xelam bu ko la daf ci wu xel bu koy xel lu muy xeloo bu ngeen jiite pé yëpp dem aljana fi sëriñ bi ñu xam loo bu ngeen jiite pay bi yàlla dem aljana bi sës yoonam ngi moom sëriñ bi ñu xam loo fa iblisa fi